Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi waxoon nañ semaine bële passé ne dafa am kenn ci boroom xam-xam yi ku tudd Nabil Iwadi ni ñu gisee tey àddina bi ni muy doxee ak fitna yi ni mu bëree ak lëndëm yi mu daal di génne benn article daal di koy tuddee naxnu fi ayaami masihi dajjal mu ne ñun waxtu yi nu toll ñoo ngi ci fanu waa jooju ñuy woowee dajjal waaye kan mooy dajjal
man huwa dajjal ñu ne huwa rajulun min bani adam moom dajjal moomu am mbindeef la yàllaa ko sàkk waaye ci doomu aadama yi la bokk kon nit la du jinne du malaika moom dajjal kon nit la ci doomu aadama yi la bokk dafa am ñaari xeet ñoom ñépp diina wax bu àdduna di waaj a jeex ñoom ñaari xeet yooyu yépp yuy fitnaal àdduna bi lañ waaye ñaari xeet yooyu yépp ay doomi aadama lañ ki ci njëkk mooy dajjal ñaareel bi mooy yaajuuj wa maajuuj fa kullun min addajjal wa yaajuuj wa maajuuj min bani aadam ñoom ñaari yépp moo xam dajjal la moo xam yaajuuj wa maajuuj ci xeetu doomu aadama lañu bokk comme nun loolu sëriñ bu tudd almanawi wax na ko ci téereem bu tudd faydul qadir mu ne yaajuuj wa maajuuj min bani aadam ci xeetu doomu aadama lañ bokk ñoom yaajuuj wa maajuuj imaamu nawawi ba tey moom it nee na hum min bani aadam alayhi salaam nee na loolu ind aksar ulama imaamu nawawi nee na yaa juuj wa maa juuj boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne li ëpp ci ñoom wax nañ ne ñoom ci doomu aadama yi lañ bokk wa qaala ibnu abdul bar al ijma ala annahum min waladi yaa fas ibnu nuux alayhi salaam ibnu abdul bar kenn ci fóore yi imaamu malik la daanaka kooku ginnaaw malik kenn gënta nekk foore ibnu abdul bar ci mazhabu malik moom nee na ijmaa la suñ ne ijma mooy dëppoo la ci borom xam-xam yi nee na ñoom yaa juuj wa maa juuj ginnaaw ba ñu bokkee ci doomi aadama xam ngeen ne bi yàlla alagee non monde nuux ñi fi judduwaat ñetti doomu nuux ñoo leen jur saam haam ak yaafas yaa juuj wa maa juuj ci xeetu ci doomi yaafas lañ bokk waaye ñooñu taxu ñoo jóg tey liñ tax a jóg xutba tey bi mooy dajjal kan mooy dajjal moom dajjal moomu ginnaaw ba ñu xamee ne doomu aadama la yàllaa ko bind waaye yàlla daf ko may pouvoir may ko kattan lahu qudraat laysa li gayrihi min albashar yàlla may na ko kattan may ko doole may ko pouvoir boo xam ne yeneen mbindeef yi amuñu ko moo tax nga dégg ñu naan day def montagne yi urus wala xaalis wala nga dégg ñu naan mën na naan géej wala mën na am na ci kattan def ay kéemtaan ndax yàlla moo ko may makkanahu llahu minha ixtibaaran wa imtihaanan li imaani nnaas yàlla may na ko kattan boobu yàlla may na ko doole jooju moom dajjaal muy teste di nattu di maye pourquoi yàlla def loolu li imaani naas xool nit ñi seen ngëm fu mu toll ndax dafa yomb torop ay nit taxaw ne ñun jullit lan rek yàlla daal leen di bindal sahaadatul iman alif lam mim ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen yaakaar ne da ngeen naan ñun gëm nañ yàlla am nañ imaan rek yàlla mu ne dëgg la daal di ubbi buntu àjjana yi dugal leen déedéet wa laqad fatana alladina min qablihim fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wa la yaalamanna alkadibin yàlla mu ne ñi leen fi jiitu woon natt woon naa leen ma teste leen ma xam ñi dëggu ma xam ñi fen noonu la yàlla yu indee dajjaal pour bu ñëwee ak pouvoiram yooyu ak kattanam yooyu ak pexeem yooyu yàlla xam ana ci ñan nit ñi ñoo koy topp waaye moom dajjaal moomu mbokk yi faqad hazzarana annabi sallallahu alayhi wa sallam min ittibaa'i fi dalali sunu yonent muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tere nanu ñun jullit ñi ñu topp dajjaal moomu bis bu ko yàlla feeñale ba mu commencé di woote ak ay coowam ak mbambam ak mbabooram ñun jullit yi ñu topp ko ndax ak réer la yor ak réer la indi loolu dafa war a leer ci ñun ne bis bu nekk ñu koy wax kaw suuf jullit yi dara du yaatu ci ñoom lu dul ñu topp ci ginnaawu sayduna muhammad képp ku uti feneen njub képp ku uti feneen lu lay baaxal dëngate ak réer nga fay jëlee kenn dootul baax ci kaw suuf lu dul ku topp alquran ak sunna ndax ballukaay bi baaxal nit foofu dong la ko yàlla def yonent bi dong moo am pouvoir yàlla joxoñ ko baaraam daan ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek jub benn damir la wa in tutiuhu yéen ñi jàngarab yéenay wax in harfu lan la harfu sart lan mooy sunu sart kon ñun jullit ñi ñu jub mooy topp sayduna muhammad keneen ku la neex toppal coono dong nga fay jëlee ak ndëngate ak yàqute wala ñu liggéey loola ba nga màggat ñu ne la mën ngaa ñibbi retraite nga amma sayyiduna muhammad boo ko toppee jub loolu lan mooy dalil bi yàlla moo ko wax waaye lan mooy pratique bi xool leen ñi ko toppoon jël leen juróom abu bakrin siddiq ba mu toppee yonent bi lu mu fa jële Ousmane ibn Affan Omar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Bilal muazzin ar-rasul Ammar ibn Yasir jëlal 124 000 sahaaba kenn ci ñoom su même buñ doon wax ne kii moo gën a ndaw ci sahaaba yi waa Sénégal mënuñu am ku mel noonu kon li yàlla wax ne wa in tuti'uhu tahtadu pratique baa ngo mbokk yi moom dajjaal moomu yonent bi mooy tandikuloo nañu pour ñu topp ko ci réer gi muy woote waaye wa axbarana an sifaatihi alxalqiya walxulqiya sallallahu alayhi wa sallam dañul duñu ko mooy tandikuloo di ko waxtaane ba sahaaba yi tiit dafa ne dajjaal a ngi nii di ñëw ndax ni mu graawee yonent bi dañul di ko wax sahaaba yi mu wax leen melokaanam nu muy mel ci yaram waaye nan lay mel ci jikko jëmmam sax yonent bi wax na ko sahaaba yi alxalq mooy ni ko yàlla bindee moom dajjaal nu muy mel yonent bi leeral nañ leen ba leeral leen kanam gi leeral leen kawar gi leeral leen yaram bi nu muy mel ba sahaaba yi tiit dafa ne bu ñu génnee jàkka ji di ñibbi seen kër dañuy dajeek dajjaal ndax nu mu garaawee waaye yonent bi màndarga bi gën a rëy bi mu jox sahaaba yi ci dajjaal mooy maktub bayna aynayhi alkaaf walfa warra salasati ahruf ñetti araf la ñuy bind diggante ñaari bët yi kon fan la ci jëbi kafara mooy kaafir loolu lañ fay bind yéeféer looloo gën a rëy lu yonent bi joxe waaye mbokk jullit yi limaza natakallam ani dajjal lan moo tax jamono yii nu nekk nit ñi war a baril waxtaan ci dajjal lan moo tax li ko waral mooy al ilmu bi shay xayrun min jahli bihi min al jahli bihi xam dara mbir nga xam ko moo gën nga réere ko mbir nga xam ko wala nga xam ci tuuti moo gën nga toog ñuy wax mbir mi yow xamoo ci dara loolu tax huzayfatul yamani radiyallahu anhu wa arda kenn la woon ci ñu waroon yonent bi huzayfa moo nekkoon ku yor sirru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam secret yonent bi huzayfa moo ko yoroon Huzayfa mooy kenn ci saaba yi koo xam ne moom la yonent bi woowoon ba mu ñëw mu ne ko diw ak diw ak diw ak diw ak diw ay naafiq lañ waaye bul wax kenn seen tur noppil bul ko wax kenn Huzayfa noppi Omar da daan tëdd ba guddi ba yëg na ñëpp tëdd nañ Omar ubbi buntam ndànk sol ay dàllam xuus ci lëndëm gi ba egg kër Huzayfa fëgg Huzayfa ubbi Omar ne ko dimbali ma ngir yàlla nga wax ma ndax man ci naa féqi laa bokk wala bokk ma ci Umar Umar Huzayfa ne ko dama waxoon ak yonent bi duma waxe seen tur kon awma droit di la wax ci nga bokk wala bokkoo ci ndeysaan allahu akbar xoola Umar di tuumaal boppam ndax moom naa féq la wala du naa féq xoola Huzayfa ni mu déggalee yonent bi Umar amirul muminin xoolal Umar heure bu mu ñëw waaye xoolal Huzayfa lu mu ko tont dama waxoon ak yonent bi duma feeñal seen tur Omar nan la doon xamee ñi dee nekk ay naafiq ci Médine su ñu deewee comme yàlla dafa tere ñu jullee naafiq yi bu ñu deewee Médine rek Umar danaan ana Huzayfa su gisee Huzayfa ci sàppe bi ñuy jullee néew bi Omar taxaw julli su Omar ne ana Huzayfa ñu ne moom da ñëwul Omar jël dàllam ne jullee leen seen néew Omar day sol ay dàllam ne waa Madine jullee leen seen néew dem yoonam allahu akbar Huzayfa moomu moom moo doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nee na nit ñi dañ daañ laaj lu baax man Huzayfa may laaj ani sharri maxaafatan an yudrikani bu nit ñi toogee naan yonent bi waaw ku bëgg dugg àjjana nooy def faratay njàpp ñaata la lan mooy faratay sangu Huzayfa moom lu bon rek lay laaj yonent bi nangam bi lu ci yàlla wax jahannama nu mu mel yonent bi yonent bi di ko xamal nee na nit ñi dañ naan laaj lu baax man may laaj lu bon ñu ne ko waa yow lu tax nga doon laaj lu bon mu ne ma ndax ma xam lii mooy lu bon ma moytu ko ndax nit bu xamul lu bon doo ko mën a moytu tey Sénégal a ngi nii lu tax mënuñoo moytu bidaa parce que xamuñu ko da ngay génn léegi woote ñu ne tey de démb démb de moo doon guddi àjjuma gi taw na ndox moomu de boo ci naanee ndox moomu de boo ko diwoo ndox moomu de boo ci defee netetu ak laaj nga sangoo ko nga gis ñépp xëy dem di jënd netetu ak laaj di dëbb di ko booleeg ndoxum taw moomu di sangu lu tax parce que xamuñu ñaata tey ngeen di gis ci mbedd yi ay nen yi ñu toj ñaata ngeen di gis ay ñaata ñaata ñaata ñaata ngeen di gis ay bidaa lu waral lool mooy ñooñu di ko def xamuñu ko Huzayfa nee na dama doon laaj lii pour ma xam ko ndax ma mooy tëndik ko bu ma gisee nit ñi di ko def ma xam ne lu mu xumb xumb xumb du dëgg lan moo tax tey nit ñi mënuñoo moytu bokkaale c'est parce que xamuñu bokkaale la takk ay gàllaaj ay ndombo takk ay weñ da ngay gis ku takk ngannum lam soo ko nee salaamualeykum yaa cheikh lam bi pour lan la mu ne la sarax la sarax sarax dañ koy joxe mu dem wala mu ne la garab la garab dañ koy naan boo demee pharmacie ñu bindal la paracetamol wala ñu bindal la cetamil wala ñu bindal la Efenergan nga daal di indi boîte bi daal di koy takk ci sa bopp ba mu dëgër boîte bi nga takk ko sa bopp jël benn sagar takk ko ndax bopp bi dina sedd kañ la bopp bi di sedd boo dajjee paquet bi dajji comprimé yi fa mu nekk nga tëmbal ko ci sa gémmiñ daat ci boole ndox mu dugg ci sa biir bi boo toogee ay quelques minutes douleur bi daal di arrêté ah mooy naan nga ko waaye nga jël comprimé bi takk imagineel nga ni lam garab la nga takk lam bi te yonent bi ne lam ku ko deewaale doo dugg àjjana keroog ba yonent bi gisee waa ji takk mu ñëw tee loxo waa ji buddi jaaro bi wala lam bi sànni ko mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan wallahi maa ngi giñ ci màggaay yàlla bis boo dee woon lam bi nekk sa loxo doo texe mukk ñaata tey sénégalais ngeen gis ci ko takk lu tax mooy dañu koo xamul moo tax ñu koy takk waaye bu ñu xamoon ne bu ñu dee dañuy dem safara kon dañ koy dindi Huzayfa nag loolu la wax nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaa ñi dañ ko doon laaj anil xayri man ma koy laaj ani sharri maxaafatan an yudrikuni an yudrikani gaa yi ñu koy laaj lu baax ma koy laaj lu bon ndax bis bu ma ko fekkee ma xam ne lii mooy lu bon ma mooy tandik ixwatal iman fa dajjal azamu fitna dajjal moo gën a rëy ci fitna bu war a fekk jullit yi ci kaw suuf dajjal la ci gën a rëy danger bi gën a rëy war a fekk jullit yi ci kaw suuf mooy dajjal ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne bis bu ma fi dajjaal fekkee ci kaw suuf man ak yéen ñu nekk fi man mii maay jëflanteeg moom waaye nag bu ma fi fekkul yow yàlla yaay sama xalifa ci sama jaam ñi jullit bu nekk na nga aar sa bopp kon yonente bi mun nu koo fay sallallahu alayhi wa sallam nee na fa dajjaal azamu fitna dajjaal moo gën a rëy musiba bi war a fekk jullit yi ci kaw suuf loolu tax xaafa nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi minha moo tax royant bi ndey santiit ragal ci xeetam ci dajjaal bu leen fi fekkee ndax gars yi dañoo oyof comme xobi garab ngëm gi dëgërul xoolal tey waxuma dajjaal waaye daj doomi dajjaal yi waxuma dajjaal bu mag bi de doomam yi ak sëtam yi xoolal tey ni ñuy naxee jullit yi dajjaal bi mu ñëwee lan la doon woote di ngeen ko gis léegi ci kanam kon su ma nee ay doomam ki sëtam di ngeen xam li tax ma wax loolu ay doomi dajjaal a ngi fi de ak ay sëtam ñoo ngi ci biir dëkk bi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam hazzara wa xawafa wa anzara min ad dajjal ñett la boole fa hazzara mooy tandikuloo nañu mooytu leen dajjaal wa xawafa mu tiitloo nit ñi waaye wa anzara mu waar leen allahu akbar lépp pour lan dajjaal mooy tandiku leen ko yenent bi mooy tandiku loo nañu dajjaal mu ragal loo ñu pour dajjaal waaye mu waar nu ci dajjaal lima maadu dajjaal min ashubahat wal fitan lu tax yonent bi def ñett yooyu waaraate ragalloo nit ñi mooy tandikuloo nit ñi ndax dajjaal dafa bëri ay subax yu mu indi ay lënt dajjaal léppam dafa lëndam léppam lënt la léppam kéeféer la léppam bokkaale yàlla la moo tax te bu ñëwee jullit ya koy topp te buñ ko toppee dañuy dem safara moo tax yonent bi tiit ci ay mbiram xam ne kon moom yonent bi bu génnee àdduna dajjaal ñëw ginnaawam kon jullit yu bëri dinañ sànk moo tax yonent bi fa hazzara wa xawafa wa anzara ndax subahaat yu nekk ci dajjaal waaye fitna yi dajjaal di indaale ndax fitna weesul nga gis am montagne def ko or ne leen maa yàlla nit ñi daal lay topp mbokk yi dajjaal bu gë ñëwee li muy njëkk a def mooy day woote annahu rabbul alamin danaan mooy yàlla maa yàlla la wax gaa yëpp daal di koy topp lu tax parce que pouvoir bu muy wane léegi dajjaal ñëwagul gisaguñu yenn pouvoir waaye ñu gis ay doomu aadama naan maay yàlla man yàlla laa wala man damay gis yàlla bal sax dañ naan diw mooy yàlla borom guddi gee diw mooy yàlla wallahi lazim dañ ma yónnee benn ay jàng ay jàng gars yi di yuuxu ci jàng yi ci guddi gi borom guddi gee diw mooy yàlla borom guddi gee diw mooy yàlla loolu mooy woy ba bët set borom guddi gi di wax turam ne mooy yàlla ñooñu ku leen ne ay doomu dajjal la ndax nit ñeme na ko weddi dajjal bu ñëwee lu muy def li muy njëkk a wax mooy man maa yàlla annahu rabbul alamin maa moom mbindee fi léegi nag bu ñu waxee kenn moom it wala moom mu taxaw ne maa yàlla wala ñu ne diw mii mooy yàlla est-ce que kooku du dajjal bu dul dajjal ndax bokkut ak dajjal est-ce que du doomu dajjal wala sëtam wala jarbaatam wala mbokkam maay yàlla iblis li muy garaaw garaaw musul wax maay yàlla moo tax bi mu déggee firawna ne maay yàlla iblis daa jóge ba ci kaw daanu gisu daal ni allahu akbar li may saay saay saay saay saay saay yépp gis naa ku ma gën a saay saay ñu ne iblis ku la gën a saay saay mu ne firawna ñu ne firawna lu mu def nee na déglu leen firawna nee na ana rabbukumul aala yemul ci loolu mu ne leen maa alimtu lakum min ilahin xëyri xamaluma leen beneen yàlla bu dul man iblis nee na man man ragal naa yàlla ndax waxoon naa leen inni axaafu llaha rabbal alamin man damaa ragal yàlla borom mbindee bi kon man xaramaa ragal man am naa yàlla ba pare firawna ne moom moom mooy yàlla mu bàyyi ba guddi mu ñëw kër firawna mu fëgg firawna mu nag mu kooka la mu ne ko xam nga ne da ngay fen kon doo yàlla iblis ci boppam xam na ne gars yi dañuy fo moo tax yowmal qiyaam iblis bu tabaxalee pojomam minbar bi bu ko tabaxee mina door bi ba taxaw ci kaw di xutba mu nekk bis bu doy waar danaan leen ah yàlla daa woote ma woote ngeen bàyyi yàlla topp ma yàlla daa woote ma woote ngeen bàyyi yàlla topp ma tey nag maa ngi nii mënuma leen musal mënu leen maa musal te nag maa ngi leen yëgal de bu ma fi kenn wax dara nag ndax fekkuma sa kenn seen kër wone la ñëwal ñëw di jàpp damaa taxaw ci mbedd mi samp samay baas def sama soirée indi samay way ngeen génn ci kër yi ñëw ne de xumb na neex na kan ci yéen laa jox ne ko ñëwal ba pare man bi ma ñëw bi ma leen wooyee yéen ñëpp da ngeen ñëw di paas yàlla bi mu leen wooyee paasu leen kan ci yéen mooy doon dugg ci jumaa ji léegi ñu jox ko ticket ne ko 200 la kan ci yéen moo jënd ticket julli boo doon dugg stade léegi da ngay dañ ci ticket wala allahu akbar kon mbirum dajjaal a ngoog dajjaal bu ñëwee li muy njëkk a wax mooy annahu rabbul alamin lan moo tax ñu war a waxtaane dajjaal mooy fa ida arafna sifati dajjaal wa turuqu salaamata minhu xamaana allahu min charrihi suñu xamee melokaanu dajjaal ñu xam yoon yi muy wootee ñu xam ay pexeem yàlla aar nu bis bu nu fekkee ci kaw suuf bu tàmbalee di wax wala mu tàmbali di woote wala muy jëf wala doomam yi ak sëtam yi di ko wooteel suñu xamee li yàlla wax kon yàlla daf ñuy musal ci ñooñu wala moom dajjal moomu ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah lan moo tax ñu tuddee dajjal bil masihi dajjal tasmiyatuhu bil masihi dajjal lu tax sumiya bil masih li annahu mamsuhu al ayn al yusra fa huwa a'ur la yara aw a'war illa bi aynin wahid lu tax ñu tuddee dajjal masihi dajjal mooy moom bëtu góosam bi bëtu càmmoñ bi dañ koo masa amul bët dafa pat benn bët lay gisee benn bët la am loolu moo tax bokk na ci li tax ñu tuddee ko masih dajjal mu ne bal waqiila bal ad dajjal yusamma al masih dajjal ci boppam tuddee nañ ko encore almasih mooy montagne yi muy maasale muy nekk or wala géej gi muy maasale muy fer wala suuf si muy tibb sànni ko mu nekk xaalis loolu tuddee nañ ko ko tax na ñu tuddee ko almasih am na ñu ne tudd na almasih ndax am na pouvoir u soppi nit wa qila sumiya bilmasih li annahu yamsahu l ard bokk na encore li tax ñu dee ko masih ndax dafay masa suuf si loolu tamit bokk na ci wa qila li anna ahadu shiqay wajhi laysa fihi aynun wala hijab bokk na ci ba tey ñu dee ko masihu dajjal benn côtéem bi bi nga xam ne amul bopp côté boobu du gis looloo tax ñu tuddee ko awar koo xam ne patt la beneen riwaaya bi nee na lu tax ñu tuddee ko dajjal mooy akbarul kazibi dajjalun kazabun muxtaal mooy moo fi dàq fen fen bëri googu muy fen ak dàq gi mu dàq fen moo tax ñu tuddee ko dajjal loolu xadis yonent bi moo koy firi yonent bi nee na ku du gudd fan sama ginnaaw dina am ñuy feeñ sa yazhar fi ummati dajjaaluuna kazzaabuun kullun yazamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi waaw ku dund sama ginnaaw di nga gis lu ëpp fan fanweeri fenkat ñoo ñëpp kenn ku nekk boo ñëwee looy wax man yonent laa yàllaa ma yónni yonent bi nee na laa nabiya baadi la nabiya baadi yonent du ñëw sama ginnaaw moo tax ñi bëgg a wax yonent dañ naan déedéet waxuñu yonent bi la dañu ne moom moo nekkoon fii dafa ñëwaat fii parce que xam nañ buñ ne yàllaa ko yónni waat ñu ne leen ah yonent bi waxoon na la nabiya baadi ñu ne kon moom fee la nekkoon léegi ñëwaat na fii moo ngi fii ku ko indi fii bi muy ñëwaat loolu mooy wax bi kan moo ko indiwaat fii moom bi mu dafa faatu ñu sangu ko suul ko bàmmeel baa nga nee ca Médine lan moo ko indi Sénégal lan moo ko yóbbu Gambie lan moo ko yóbbu Mali waaye yonent bi moo waxoon loolu lii moo tax Huzayfa ne nit ñi dañ doon laaj lu baax may laaj lu bon pour ma xam ko moo tax boo xamul yonent baa nga may jëlee ñu suul da ngay gëm ne moo ngi Sénégal nga topp woote yooyu yonent bi tànkam mësta tegu ci Afrique doomam moo mus a ñëw Afrique waaye moom mus ta ñëw Afrique yonent bi bi gaa yi di ñëw sax saxaaba yi bi mu naan leen dem leen Éthiopie moom bokk ci dafa yabal dafa dafa yabal saxaaba yi moom ñëwul mbokk jullit yi maza yudda'i dajjal dajjal bu ñëwee lan lay wootewu a dajjal yuddaa annahu rabbul alamin wa yad'u an-nas ila al-iman bi dhalik لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور دجال bu ne cëpp ci kaw suuf li muy njëkk a def mooy woote ne moom mooy yàlla borom mbindeef fi mu woo nit ñi ne ko ne leen kaay leen ngeen gëm ma ku ko gëm mu defal la xéewal ku ko weddi mu rey la commencé di génne ay pouvoir am lu bëri ci xeet wi daal koy topp yonent bi nag loolu la tiitoon loolu la doon moytandikuloo loolu la doon waaraate ba mu ne dajjaal a patt la te seen borom pattul te dajjaal patt la te seen borom moom pattul kon bu leen ko jaawale ak moom soo gisee yonent bi di sonn dañuy jox misaal yi di ñu jox melokaan yi mooy pour ñoom xam-xam kon lan moo tax tey ñu réer bay topp doomu aadama yi nga xam ne ñoo dajjaal ñoo yem alxikmatu min adamu zikri dajjal fi lquran alkarim dafa am ak xereñ ak xam-xam alquran li muy rëy di màgg màgg màgg ak dajjal li muy dangereux bokk ci màndarga yowmal qiyaam buy jege si dajjal day ñëw alquran tuddul turu dajjal waaye lan moo tax loolu dafa am hikma bu ci yàlla def lu tax yàlla tuddul turu dajjal ci alquran waaye texte yi hadis yi tudd nañ ko mu ne addajjal azamu fitna xasiya nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi minha ولذا حذر جميع الأنبياء أممهم منه دجال موي فتنة بي غنا ري بي فك جولي دي غيناو يونت بي عليه الصلاه والسلام تي كاw suuf motax yonent bi tiit ci ay mbiram waar ci xeetam mooy tandiku loolu ko xeet bi waaye du yonent bi rek bal jamiil anbiya mboolem yonent bu yàlla mës a yónni bi nga ñëwee bokk nga ci sa programme nga wax say nit mooy tandiku leen dajjal mooy tandiku leen dajjal du yonent yàlla muhammad de jamiil anbiya mboolem yonent yi la tàmbalee ci nuux ba ci yonent yàlla muhammad ñoom ñëpp ku ci nekk waar nga say nit ne leen moytu leen dajjal وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنة الدجال في آخر كل الصلاة صلى الله عليه وسلم يمول ci moy tandiko loko waye def ñu ne na ngeen ñaan yalla sax mu leen di musal ci dajjal su ngeen julle rakka bu mujj bala ngeen a sëlmal ñaan leen yalla yalla musal leen ci dajjal motax dernier rakka taaya bu mujj kenn ci ñun warul sëlmal lu dul war na jàng ñaan boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe pour yàlla musal ñu ci dajjal allahuma inni auzu bika min azabi jahannam wa auzu bika min azabi alqabr wa auzu bika min fitnati almahya walmamat wa auzu bika min fitnati masihi dajjal am na sahaaba boo xam ne dane man sama julli su ma jàngulee ñaan bi sax yenn saa yi dama koy baamtuwaat pour ma def ko ci samay ñaan pourtant yonent bi moo ko joxe kon yonent bi joxe na ñaan pour moytandikuloo nit ñi ragalloo leen nit ñi waar leen ba jox leen am ñaan bu leen di musal ci dajjal bal yonent bi nee na fukki aaya yu njëkk ci suratul kahfi alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بمنك فك آية yenent bi neena fukki aaya yooyu ku fi dajjaal fekk boo ko jàngee yàlla musal la ci moom ku fi dajjaal fekk ci kaw suuf soo jàngee aaya yàlla musal la ci dajjaal kon ci sunna yonent bi yonent bi joxe na ñaan ci alquran ay aayeeng fa ci suratul kahfi mooy début saar bi fukki aaye yu njëkk yooyu kum fi dajjaal fekk soo jàngee aaye yàlla musal la ci dajjaal ñetteel liy musal nit ñi ci dajjaal mooy nëbbatu ji makka wala médine parce que dajjaal bu ne cëpp ci kaw suuf dana raatale adduna bi yépp yàq ko waaye médine ak makka la dul dugg kon gars yi xam nañ ne Makka ak Medine du moroomu yeneen dëkk yi ñii concurrence Makka boo waxee ñu ne yéen waa Makka bu ñu wooree ngeen woor waa Makka bu ñu jullee ngeen julli waa Makka waa Makka mu ngoog yéen ñi wax loolu mak Jibril bu dee cëpp dana rajaxe seen dëkk te du rajaxe Makka yonent bi nee na dëkk yëpp lay dugg lu tax du dugg Makka ak Medine ay malaaka ñooy yor ay bol de taxaw buntu Makka ak buntu Medine dajjal du dugg beneen dëkk nag yonent bi nee na danañ ko rajaxe dajjal dana ko rajaxe kon mu ngoog muslu ji alluju ila makka wal madina haythu la yadkhuluha ad-dajjal wa qad zakara الله عز وجل في القرآن عددا من الأسرات الصغرى والكبرى سنو برم جل جلاله وعز كماله جنجنا القرآن جنجو wala mu wax ay aaya ci alquran yuy leeral ne yowmal qiyam balaa moo jot nangam ak nangam bi dina leen fekk ci kaw suuf yooyu ba ci jiitu yenn mandarga yu ndaw la yenn mandarga yu mag yi waaye mbokk yi ku am xel tey xam ne yonent bi mandarga yu ndaw yu mu joxe woon pour aax al yowmal qiyam ñëw daanaka jeex na mandarga yu ndaw yi daanaka jeex na takk takk ci yu mag yi lañ nekk mooy tremblement de terre yi ngeen di gis volcan yi ngeen di gis muy tàkk jant bi ñuy weer wi ñuy jàpp loolu ci màndarga yowmal qiyaam yu mag yi la bokk bokk na ci màndarga yowmal qiyaam yi gën a rëy mooy yonent bi nee na bu ñu demee ba arab yi amatuñ ku leen gouverner at yi ñu nekk yu génn pour ma bañ a anticiper yeneen xutba yi ñëw parce que bii mooy première xutba des na yeneen ñeent yi ñëw ci ginnaaw ma bàyyi ko foofu ba mu dugg ba ñu yegg fa bokk na ci màndarga yooyu yu mag ak yu ndaw mooy insiqaaqul qamar xotteeku weer wi bokk na ci màndarga yowmal qiyam yàlla nee na iqtarabati saa wan saqal qamar iqtarabati saa bés penc ñëw na de lu ko waral mu ne weer wi xar na ñaar loolu kañ la ko yonent bi defoon ca jabalu abu qubays ca makka la yonent bi taxawoon ñaan weer wi xar ñaar tépp ci digg bi bii jaar nii bii jaar nii ña ko sàkk woon ñoo ko neen boo ko defee ñu gëm na yow yonent nga xoolal jamono yonent ak léegi ba léegi ñu ne yowmal qiyaam jotut te alquran bi bi mu wàccee dana yonent iqtarabati saa wan saqal xamar ñaareel bi yàlla tudd ci alquran mooy yaa juuj wa maa juuj hatta iza futihat yaa juuj wa maa juuj wa hum min kulli hadabin yansiluun yàlla nee na bu ñu demee ba yowmal qiyaam di waaj a jot xeet woowu ñu naan yaa juuj wa maa juuj danañ génn fu ñuy génne wa hum min kulli hadabin yansiluun montagne boo xool gis leen ñuy wàcc di ñëw min kulli hadab hadab mooy al amakin al murtafi min al ard loolu la ibnu abbas ak ikrama ak abu salih nee nañ montagne boo gis keroog di nga gis yaa juuju wa maa juuju ñu bënn ko di génn dañoo ngande ba kenn ku nekk ci ñoom booy tëdd sa nopp ngay lal nga sàngoo beneen nopp bi ndax ngandaay dañuy lekk doomu aadama yi comme ni ngay lekkee gerte caaf nii la ñuy def taf di ko lekk géej gi benn seconde lañ koy naan mu jeex fër te ñooñu ñoo ngi ñëw ginnaaw balaa dajjaal di ñëw ñooñu danañ ñëw yonent bi nee na yàlla nee na ci quran wa hum min kulli hadabin yansiluun yansiluun maasa yusriuuna ila fasaadi al ard dañuy ñëw di yàq suuf si tool bu ñu romb kër gu ñu romb